sama maam chemin noonu sama yaay mu ngi juddoo biir cité Balabé chemin d'affaires dama ko xam parce que aussi nekkoon naa directeur de cabinet ma yoroon dossier bi chemin d'affaires da ngeen a gis ci màggal bi pour wax la ne ñun suñu gouvernement dañu am problème priorité te président am na lu ko metti xam naa man màggal bi ba mu jotee ñu def benn opération defaraat raay bi defaraat tiwaawan bi gars yi dem màggal après màggal bi léegi qu'est-ce quelle est-ce que wax nañ leen quelle est la suite on gère les affaires d'un État l'État est continu l'État est impersonnel l'État est laïque tey jii chrétien bi daf ci am wàll ba nga xam ne moom bu bu laa juge fii dem Tiwaawan wala mu dem kii tey suba war na mën a dem Tiwaawan mais dem màggale ji le train n'est pas fait pour des événements religieux le train dañ ko def pour tous les jours dama la jox benn exemple et puis la, la, le problème des emprises se pose da ma posé question bi nga xam ne mën naa ci tax wax ci waxtu parce que dama ko gérer dama toog ak benn ministre ma ne ko ak président ci boppam li ngeen bëgg a def ci écartement standard baaxul yéen a koy defee mille cinq cent milliards pour cinquante quatre mois li may wax nii acteur Thiès yu bëri fekke nañ ko ma koy wax président de la république ma ne ko yoon boobu baaxul avec soixante dix milliards sur trente six mois et au bout la première semaine saxaar bi daw parce que raay bi. du fépp yàpp yàqu li ñu gëmloo président de la République mooy fépp a yàqu dañ koy war reprendre benn parti ci raay bi rek moo yàqu par parti la parti yooyu desale nañ ko avec l'union européenne moo ñu financé woon maa yoroon dossier bi ñu ko bëggoon defar defar nañ ko bu yàgg c'est un manque de volonté dañu amoon beneen projet mooy teg écartement standard parce que li ñu gëmloo président mooy euh, écartement métrique bi amatuñu pièce de rechange or nu nous aspirons à être un pays émergent dem leen ci pays émergent yi muy Brésil Russie Inde Corée yëpp bu ngeen ci demee pays émergents yëpp écartement métrique la ñuy am nañ pièce de rechange qu'est-ce qu'il faut maintenir notre et améliorer la vitesse commerciale bu boobaa ça va nous coûter juste soixante milliards pour reprendre le rail maintenant on a un problème d'emprise mooy libérer les emprises ferroviaires boobu aussi parce que y a une loi de 1957 du temps du colon qui a été reprise en 1990 qui parle carrément des emprises les gouverneurs dafa am rôle bu ñu ci war a joué te joué ko man vraiment sama xel daf ci tey parce que bu ñu bàyyee sur l'axe du rail sur quinze mètres comme ça de gauche à droite kenn waru fa def dara mais da dem dem nañu Louga keroog da ngay gis ci kaw raay bi ci kaw raay bi lañ teg ay cantine dama toog ak benn kilifa bu mag mu mu recevoir ma président institution la dëkk biir Thiès bi mu woolu man dama la soxla. li ma la xamal ni bi ma ko waxee dafa ma ne je vais tout faire pour voir le président ndax lii information yi aw ma ko woon quand je lui ai parlé de l'écartement métrique ak standard non gis nga même le TER on peut en parler le TER n'a pas fait l'objet d'étude parce que gis nga saxaar bi fu muy jaar nii mën nañ am une voie plus courte pourquoi muy jaar ci forêt de Mbao loolu histoire la taarix la parce que temps boobu train bi kii la doon jël charbon fallait ñu jaar ci forêt de Mbao fa lañ naan defee foofu de station pour ñu jël du bois mais léegi que train électrique la waroon nañu am à moindre coût sa terre la parce que am na voie bu gën a gaaw bi nga xam ne du jaar ci forêt de mbaaw bi suñu travaux dafa manqué étude c'est-à-dire que moom lay wax ma ne président doo jël rek nga fal ministre nii comme ça un ministre il gère une politique de l'État war na mën a xool naka la koy conduire ba nga xam ne dañuy am une meilleure efficacité des dépenses publiques avec de bons de bons résultats mais gis nañ ko ci BRT bi bi ñu commencé tester rek affaire bi daa kii def gi parce que doo tester sur l'ensemble d'une infrastructure